auusu billahi min alsheytaani irajim bismillahi irahmani irahim wassalaatu wassalaamu ala nabiil karim sayidina wa maolana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sawi ritwaani wa tamkin xarajtu yowma sabti saamin al asar li xidmati almuxtaari fi sahri safar ijxal rujuuhi ila xawmi sahadatana wal takfina yowma jami xalqi niiraana afawtu an il ahdaai turran li wajhi man nafaamam li xayri sarmadan lasta adfam bokk yi seen mbokkum taalibe Moustapha Guèye taalibe sëñ Sama Samba di soppeeb sëñ Mbàkke ma maam soxna Loo Jóob Taayif di ànd ak sëñ Muntaxaa ci liggéeyal sëriñ Touba saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di roy Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ci ak dëgg moo amaan mbégte dellusiwaat ci waajtaayu bis bu màgg bii nga xam ne des na tuuti ñu àgg ci muy bisum mbégte nga xam ne sëriñ Touba moo ko liggéey ba dajee ci ngërëmal boromam yàlla fay ko ci fayam yu rëy yooyu mu di ci sant yàlla ba naan lott naa ci sant gi kon ñëw leen gën sant li ma ko muy bis boo xam ne wax na ne saa yu dellu seetee lu ci waay mën na ko ca def li dalee ci ganaar ba ci gëléem nawuma ci gëléem xebuma ci ganaar waaye lu ci waay di def na nga am pas-pasub sant li ma ci yàlla mu nekk bis boo xam ne si bisub tawxiid la waaye bis la boo xam ne bu agsee na mel ne Serigne Touba moo toog ci suñ kanam orma jan koy jox nañ ko jox bis boobu te lépp lu sëñ Touba daan def lu ca waay man na ko màggal la ci bis boobu ci gépp bépp xeetu jaamu yàlla bu fa nit faat waxtu julli lu waay man ci alxuraan waajale ko weer wi waaye na nga ko gunge weer wi te saxal ko dàkk ndax alxuraan lépp lu sëñ Touba am ci alxuraan la ko jaar Sëriñ Tuubaa mbootum alxuraan bi muy dem ci géej gi moom la yenu woon yu baale ba tax liñ ko ci doon jéemal lépp kenn mënu ci dara xeeti orma yooyu lañ war a jox bis bi bi weer wi teroo di ci fàttaliku sëñ bi ndax li mu am yombul ndax ku ne sàkk woon nga ko waaye bañ la ko yenee dañ la mujj dimbali waaye buñ la dimbali woon loola dutu day échec te loola sëñ Tuubaa yonent bi wanoon na ko contrat bi wax ko ña ci jaar ñëpp waaye mu ne bu ngeen ma ko joxee incha allahu yàlla mi sàkk roogi bu ma téyelee roogi jom ji dana ko attan bis la buñ war a delluwaat ci nafar bis la buñ war a delluwaat ci histoire ndax mboolem li ñu ciy nettali ñu farlu woon te amul ngëm ci sëñ Touba te bëgg a xettali ñi ñëw ëllëg te duñu fekk jamonoy sëñ Touba ñoo ko def ci ay téere muy téere histoire yu am solo. bokk na ci na irwaawu nadim minu bi sayxil xadim bu sëñ ma lamin Jóob dagana bokk na ci minanul baaxil xadim bokk na ci jasa u zakur bu sëñ mu saaka ñun foofu rek la ñuy teg sunu waxtaan ci delluwaay yooyu ndax mooy tax li ngay wax wér mooy tax li ngay wax wóor ndax bu fekkee da nga fay bàyyi yooyu ngir tayel man ngaa wax lu bari mu neex lool ci xol waaye dëgg da ci dul am te bu ci dëgg dul am amul rek loraange moom lay mujj jur loolu nag la ñuy daw moo tax lépp lu ngeen ci dégg ci rëq-rëq rek ci ñun lay manqué waaye mat na sëkk ci ñi ko ci ñiñ ko jële xëy na nag xel mu lëndëm akuk fàtte loolu moo ñu ciy posé ba tax na dana feeñ ci biir waxtaan yi waaye ñu boole ñu ko jéggal te xam ne suñu yéene mooy suñu amoon xam-xam bi day danañ ko indi ci façon boo xam ne si mooy gën a jot bii waaye mooy gën a leer waaye nag innama ahmalu bi niyyat lépp loo xam ne mënoo ko jëf da nga koy yéene foofu rek lañ teg suñ tànk kon ñu daal di fas yéene ñëw nag ci li nga xamante ne si mooy ñaareelu waxtaanu ah, bi nga xam ne moo jëm ci yoonu gànnaar yemook juróom wala mu yemook fukkeelu waxtaan ci weeru safar tolloog ñaareelu xaaju yoonu gànnaar xam ngeen ne toppaloon nañ leen waxtaanu sëñ Touba ci siira andi aw askanam nim ko nim nim ci bokke ak ñim ci bokkal ak askan wi nga xam ne dem na ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jéem ci sun kem kattan ak ñim ko bokkal ak askan yi mu bokk nga xam ne dara génnu ci alxuraan dara génnu ci diine dara génnu ci ngor yooyu yëpp ci vidéo bu njëkk ba waxtaan wu njëkk ba andi nañ ko ci daara ñëw nag ci ak ganek jamonam ak i waajuram akub njàngam akub yaram ak i kilifaam waaye akub lëggéeyam waaye ay mayam yooyu yëpp ñëw nañ ci topp ko ci biir réew mi ba lañ ca man ñu def ko ñu topp ko ba mu génn réew mi ñu lañ ca man ñu def ko ñu topp ko ba ni mu jóge waat Gabon dikkaat ci réew mi ñu topp ko lañ ca man lépp def nañ ko ci ñu toppaat ko nag ba mu jóge waat ci Sénégal dem gànnaar bi demee gànnaar it gis ngeen ne ñeenti at yam fa def lam fa def li ci ëpp ëpp ëpp jukkee nañ ko ci téere yi nga xam ne mooy yooyu ñuy delluwaatee muy irwaa un nadiminu bi sayxal xadim ak minanul baakal xadim ak yenn ci historien yu mag yi nga xam ne ci ñoom la ñuy roy ku ci mel ne sëñ Modou Xayri Jaxate mi nga xam ne waajuram bokkoon na ci ñi nga xam ne dañoo fekke woon àndoon ak sëñ Touba dem muy sëñ Amsatu Jaxate liggéey bu rëy ba mu fa def lépp inchaa allahu dees na ko jukki ba ni sëñ bi wàññi ko waatee dikkaat ci biir réew mi dëkk yam jaar ba ni mu ñëwee fi nga xamante ni si mooy ci yeen Jolof lam fa def ci at incha allahu ñu ngi ciy góorlu di ñaan daje ci ndimbalal yàlla ak ngërëmal sëñ Tuubaa kon sëriñ bi demu gànnaaram ci ñaareelu xaaj bi mooy sabab bi lii rek moo ko waral ndax sëñ bi daana wax ne képp ko jàpp ne demu géej gi ak demu gànnaar gi benn lañ ab dof nga ndax bee ay nattu lañ ko ci doon teg nattu ya jeex na bii ay may lañ ko ci doon mayi muy demu gannaar gi moom ak pay la ndax yàlla waxoon na ko ko ne ko natt yi jeex na waaye espace bi nga ko war a liggéeyal des na léegi nag espace boobu des dangay dem ca réew boo demee boo fa toogee biir nga daal di dem fi nga xam ne mooy gànnaar am na fa ñu ma daan jaamu daan ma liggéey liggéey bu rafet ba ma fay leen cër yu am solo yu rëy waaye cër yu ma leen jox nag ñoom ba ñu faatee ñi leen fa mën wóotu mënuñoo jëfandikoo cër yooyu te man du ma mayewaat di nangu te du ma ko neenal léegi nag yow comme pay ga ci des demal ma nattu la foofa boo ko sellalee danaa jël ñooñu seen cër yooyu yëpp ñëw andi ko ñoo jox la ko su ma la ko joxee nag da ko mën a jariñoo yaag sek njaboot yaag say taalibe loolu moo tax bi Serigne Touba dikkaatee ci biir réew mi ci bi ko tubaab yi jéemalee mënaluñ ko dara yàlla mi dara tëwul nag léegi sababu saahir da ci am ak sababu baatin sababu saahir bi tax Serigne Touba dem gànnaar. lii rek la mooy bi mu delsee ci réew mi ñett ñii ñoo ko opposé sëriñ si nga xam ne dañoo yoroon ni dongo daana am ay àllarba ki si seen xol neexul ñu mel ne lu soxari sëñ bi ba tax na daanañ ci jëfandikoo sax ci alxuraan ak buur yi nga xam ne dañ fay nekkoon nag ñi nga xamante ne si ñooy dagg ak tubaab yi nga xam ne ñoo ko fexeel génneel ñetti ñii bindikaatee bokk na ci li gën a tax sëñ Tuubaa dellu gànnaar ci sababu sayir lii mooy sababu sayir bi ndax sëriñ soosu nga xam ne dañ koo soxore woon sëñ ma ñaaw si yal na ko yàlla doole ay leer moom moo ko saraa saraa bu leer ci kanamu sëñ Touba ndax bi mu ñëwee siyaare si sëñ Touba sëñ Touba da ko ma ñaaw ana naka ngeen defoon ak alxuraan mu ne ko ah mbàkke fu ñu toll daan nañ ko wàccee rek wàccee rek di ñaan nga bañ a dellu si mu ne ko ah mu ne ko waaw ndax li tax ñu ko doon def de mooy ba nga demagul ci biir liggéey boobu gis nañ ne ab sëriñ. àllarba lay am ak dibeer yi leen donga yi di fagul waaye donga yooyu dem nañ ba ñëpp mujj ñëw ci yow ba nga xaj ñu ba ba ñàkk ba ñàkk leen nga xam ne mënatuñoo am ci ñoom dara bi ngay dem ci géej géej yaanu gën fuuf bi nga dikkee la raw te bi nga dikkaatee mel na ne may goo amoon ba ngay dem am nga lu ko ëpp mel na ñooñu nag ñu amoon ñuy tamit ñi ci ëpp ëpp dañoo mujj bàbbi ñoom ñëpp ñëw jokk ci yow te xam nga ne loolu neexul cib xol loolu moo taxoon ñu doon ñaan naan yàlla boo delsi agit bi nga delsi ñuy ñaan nga gaaw jógewaat fii ndax ñu mën a jafandu ci alarba yooyu ne ko ma ñaaw de yow de da baax rek waaye lii nga xalaat di ko wax de yaag ñeneen a ko doon xalaatandoo waaye nag xolob nii nga ñëwe wax ma ko loolu la ñu bari amul kon ñooñu mel na ne kon bëgguñu woon sëñ bi ñëw waaye nee na ko ma ñaaw mbaa tuumaalu leen alxuraan mu ne ko ah doy na waar de ko bu ngeen ko tuumaalee tooñ ko de ndax ba may dem da lay def ak dindi dama ko yóbbaale muy mbootum def ak dindi dama ko yóbbaale ci alxuraan waaye nag bàyyee leen yax yi te yax yi nag mënu leen cee def dara ndax lu ngeen mas a def bu daanoo day ñëw tàggu ma ne ma defam ma baax ma jox ko ndigal ne ko bul def loolu kon foofu la sëriñ soosu opposé woon ak sëñ bi boo di addina yi nga xam ne dañoo doon ay dag dag yooyu nga xam ne dañoo mujj ñëpp ñëw tuub ci sëñ bi ñoomit it mu mel na rafle nañ ay dag ñoom it tamit ñu tàmbali di ko iñaane di ko tuumaal diggéen diggam ak tubaab yi kon ñooñu tamit mel na ne bëgguñu woon sëriñ bi dikk ñeneen yi des mooy ñi ko jébaloon yóbbu ko bañ koy yóbbu yóbbu ko indiwaat ko taxuloon ñu yóbbu ko bañ ko doon ind yóbbu ngir sànk ko jéem nañ ba dajee faag waa axlu badrin bañ signé fa contrat bi ne duutuñu ko jéemal dara loola tax nag ñu ne léegi nañ ko delloo si ci réew mi waaye niséeroo nañ sax ne dañ ko yóbbuwaat Madagascar waaye contrat bañ signé woon te yàlla waxoon sëñ Tuubaa ne danañ ñëw ci yow tinu la de waaye nag bu buñ lay tinu nan nan bind signé ndax tubaab moom lu mu la wax bu ko bindul signé ko rek loola du dëgg ci moom bañ bind ko signé ko ñu delloosi ko ci réew mi te gis nañ boo fi yàggee ñoom seen nguur dana fanq ñu ne nag nañ def tout pour jéem koo sosal tuumaal ko yóbbu ko loola tax na bi nga xamee ne ñëw na ba toog gàmmo gi nga xamante ne sii moom la fi jëkk def waaye njëkk loola kër gi nga xam ne moo doon këru Daaru Manaan gi nga xam ne moom la sancoon ci te sanc la woon ko maam Thierno bañ defar ko dafa xëy benn bés daal di jël juróom-ñaari gaal yi woo ñenn ci taalibe yi yóbbu leen ba ci soow bu néeg bi na natt leen juróom-ñaari xasab gas fi yér mu xóot ñu def noona mu daal di jël gaal yi dugal ko ci ñu daat koy sóol ci ëllëg sa ca yoor yor la kër gën a jëppet maam Thierno dikk na ko ah man day lakk gi méttiwu ma waaye liggéey bi rek dama ma ci jaaxal mu ne ko liggéey bi denc nañ ko ku yàq foofa la sëñ Tuubaa bàyyi gaal yooya ba nga xamee ne dem na fi nga xam ne mooy kër maam Thierno gi mu ko joxoon ci dëru mën naan gannaaw ba ñu wax ne dem na ci fi nga xam ne mooy dëru alimal xabir ci kër sëñ Seexloo googu ñu defal ko fa kër gu toll ci juróom-ñaari kees gu ànd ak juróom-ñaari néeg mu nekk fa la toll ci ñeent fukki fan wala yu manqué tuuti kër gi noppi maam seex Anta ñoom ñi doon defar kër gi ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak ci maggi tëll bi ak sëñ Amsatu Jaxate yàlla dogal nag biñ paree nag matériel bi ci war a dem maam Cheikh Anta àndoon ak Cheikh Ibra Fall dem ndar ne dañ koy wuti teg ko ci gëléem yi indi ko biñ ko sobee ci gëlëm yi nag ba ñëw ba am benn dëkk bu nu romb toog ci taatu garab yësal gëlëm yi benn pël gis ko ñaaw njortu daal di dem cee mbaaxaan mi nekkoon du la chef de canton ne ko sëñ beede bu ngeen gawul yéen chef de canton yi ak nguurug France lépp dana nërmeel ndax ma ngay formé ab kuréel boo xam ne day mbooloo la moo xam si déggal nañ ko te bu leen jengaloo jëme ko ci yéen da ngeen daanu ta ña nga dem gànnaar di fa ay ngànnaay mbaaxaan moom it téyul daal di def rapport daal di yónnee gouverneur général bu ndar mu convoqué chef de canton yi ci biir réew mi yëpp ba mu leen convoqué ba ñëw ñu toll ci juróom-benn fukki chef de kanto mbaaxaan ca la bokk waaye Bour Sine Coumba Ndoffène ca la bokk mu wax leen lan ngeen xam ci rapport bii mbaaxaan indi waaye ñenn ñi ñeme wu ñëw dëggal ndax xamuñu ci dara am na ci nee ñoom yëguñu ko am ci ñu ko jot a wéral am ci ñoo xam ne si nee na ñoom dañ cee niil mennum Buur Sine Kumba Ndoofeen moo jóg na lii day gëmu ko te amul commissaire bi laaj ko ne ko lan moo tax nga weddi ko yan preuve nga ci am mu ne ko kii lim bëgg bëggu leen ko li ngeen bëgg bëgg ko yàqalu leen dara jaamu yàlla dong la tal ndax moo tax ngeen jël ko yóbbu ko jangte jangtee ko delloo siwaat ko mu ne ko léegi nag kon lii nga wax lan nga koy garanté ci bu ñu demee visite fekk fa lii ñu ne am na fa am na fa yow lan nga koy garanté mun leen sama deret laa ko fas yéene garanté ak sama euh, manto bii mant bi nag maa ngi bëgg bu ñu fa fekkee ngànnaay mu dindi wax jii nga xam ne moom laa leen wax képp ku ajoote ci ban ba ci sama sëtaat bu mu faloote mukk ci siin sama dereet na ngeen ko daa dinee la rey ma fi saasa loolu la garanti mu ne kon bàyyil léegi ma dem yabal fa quartier te mbaaxaan yow yaay jiite quartier gi suñu fa demee bu nu fa xoolee gis fa ngànnaay ñu def lii nga wax su fekkee gisuñu fa ngànnaay nag yow mbaaxaan yow mii la ñuy dindi sa mant daal di signé loolu ñu daal di dem bëgg def ay pexe tappale bëgg a wut ay dem jaar ci suuf dem ngir sàmm seen kaddu ndax defe ne nit ñi ay dof lañ buur siin dellu siin ba mu yàgg mu daal di dikkaat Touba dem Darou mën naan waaye bi mu fa demee wax nañ ne ci téere sëñ ma Lamine Diop Dagana bi nee na dajewul sëñ bi ca biir kër gi ci bitti lañ dajee bi mu ko jubee mu summi dàll yi dem ba jub ko summi mbaxana mi dem ba jub ko daal di sukkuraam ba àgg way nuyuwu ko jàkkaar la moom sëñ bi ne ko yaway kan mu ne ko ah buur siin de lañ may woowee Kumba yen mu ne ko loolu lu muy tekki mu ne ko nee nañ damaa moom siin ñu ngi may jay ne ma maa moom siin mu ne ko lu doon say tànk mu ne ko dañ laa tuumaal ci njërim wala dañ laa tuumaal ca ndar ne da ngay indi ay ngànnaay ci kër gi ñu dajale ñu ñun ñëpp pour dëgg la wala du dëgg mel na man maa ko fa weddi weddi googee ma ko weddi nag moo tax ma dikk fii ndax dama cee joxe sama bakkan joxe ci sama sama manto ndax mën nañ ma ci summi boole koog dañ ma ciy rey léegi nag ma bëggoon yéen sëriñ si comme da ngeen am coloré ma bëggoon nag nga bàyyi ma ma escorté kër gi ba kenn du ko fi dugal mu ne loo jublu ci loolu mu ne ko li ma ci jublu day weesuwul ne ëllëg fa ñuy dajee dana metti dana tiis te li yàlla diggee dana ko def te ëmm fa benn cër te yow doo fa jeexal ma bëgg nag bu ci àggee nga wallu ma sëriñ bi daal koy xamal nag ne ko yow day danaa la ci fay fay goo xam si dana kawe sa njort ndax bu ëllëgee fa ñuy dajee de danaa la def ni suhadaa yi ak saalihiina yi mel weexal sa kanam ba mu weex tàll danaa la fa jox nguur goo xam ne si mooy goog góog àddina te duutoo tàggoog moom bu sëñ bi daal di koy bàyyi mu daal di dem escorté kër ga waaye Serigne Touba bi nga xamee ne laaj na ko yan jamono lañ war a ñëw mu wax ko ko ñu ngi fi ñëw le 2 juin à 1903 fekkoon na mu am ku ñuy wax Serigne Mouhamadou bun Aliyu Yanqoob yi mu wax ko woo ko nekko jox ko xasida gim tënk yaa rahmaan yaa rahiim muy rabbi bi maa yasaraw ne ko jàng ko bam mokk mu jàng ko. ba mokk mu ne ko mokkal ko mu mokkal ko mu ñëw tare ci wetam mu ne ko léegi bàyyi ko ba bis ba jot bi ñu agsee ci juróom-ñaari fan ci weeru gàmmo quartier gi ñëw mbaaxaan jiite ko ñu ñëw teppi pere kër gi jalgate gaal yi gisuñu dara ñu rus bi nga xamee ne rus nañ nag léegi ci la mbaaxaan nag jóge nag door dal ci kaw Lat um, kaw euh, ki nga xam ne mooy euh, mbaaxaan dal ci kaw moom bur suñ ku ma déefeen xamal ko ne lii laa la doon wax dara du ci dëgg waaye bi nga xamee ne ñi ngi daataan ñëw Mouhamad moomu dafa jóg daal di jóg di tari xasida gi di tari xasida gi lu mat ñett yoon war kër gi mel na luy nodd quartier gi daal di dem bu mu yàgg ñu mel ne dañoo nagam sëgg mënatuñoo def dara nga xam ne jàq nañ fa jàq goo xam ne si ak tiitaanga yoo xam ne si xasida gi diis na ci seen kaw waaye woyef na ci kaw taalib yi nga xam ne dañoo yéene woon Sëñ jàmm bi loola jàllee nag ci la sëñ bi bind xasidam gi muy wax yaa jumlatan xat sallasu bi la laalihi man lam yakun waladun lahu aw walidu axrajtu moo ni naataxina bi anni ni abdun illahi wa inni wa inni ni mujahidu ba àgg ci inni ujahidu bil xuloomi wa bi toqa abdan xadiman wal muhaymin shahidu ñu daal am kersa daal di tiit lool ba mbooloo mi sax ñenn ci seex yi dajaloo dikk ci sëñ bi ne ko danoo bëggoon kat nga may no te lii ñu lay ñaan dañoo bëgg nga may ñu ko bu nu gàntal su ko defee ñu jàkkaarloog ñoom xeex ak ñoom ba jeex ñu des fi ñoom wala ñoom ñu jeex ñu des fi sëñ bi na leen dellu leen te sant ci tukki bi dem beeg dikk bi ndax man kay yaakaaru moom soppee ragalu moom noonu ñu daal di delluwaat ca noona yàlla dogal ñu génn nag daal di waxtaan ne nun kat gàcce dal nañu ndax mënatuñ ko yóbbu fent sëñ bi bu desee fii ci réew mi di def nii danañu andil problème léegi nag solution benn lañ mën a nañ dem ci Cheikh Sidiya baaba xaritam bi mi ngi fii ci Ndar ñu gu bind ko leetar wala ñu woo wax ko ko nekk na wax ak moom bu nangoo ñu jox ko ko mu génn réew mi ñu jox ko su ko mënul nag nañ ko tiital ne ko dañ ko yóbbu ma Madagascar xupp ko su ko defee dana am ñeewante ci moom te dana ko ñaan te bu ko ñaanee dana ko may ñu daal di wax Cheikh Sidé baaba loola Cheikh Sidé Baba daa di bind sëñ Touba ab leetar bii mu ko bindee nag leetar bi wax ko ne ko man kat dama laa namm lool te di la nuyu te di la ñaanal te di la sant di la gërëm ma bëggoon nag lii tax ma di la bind leetar bi boo banoon nga jóg ñëw fekk si ma fii ci ndar ndax namm gu ma la namm te amu ci sago waaye nag ñëw gi lenn rek moo ko sabab. tubaab bi daf ma wax ne ma nañ ma la jox ma yóbbu la gànnaar ci boo nangoo léegi nag ñu wax ma ne ma boo nanguwul dañ la yóbbu ma Madagascar te bu boobaa dana métti buñ la yóbbu gànnaar nag ay xéewal dong nga ci mën a am lii moo doon sababu woo bi sëñ bi daal di takkalu fas wa dem ba jub ndar yàlla dogal mu amaat ndigalal wàññiku jotu la àgg mu wàññi bi mu dikkee mu bindaat leetar xamal ko nekko jot naa ci leetar bi ba amul yéenay dikk waaye nag ñaar wala ñett muy da ngaa wax ne tubaab yi nañ ma la jox nga yóbbu ma gànnaar su ma nangoo su ma nanguwul ñu jël ma yóbbu ma Dagaskar ma bëgg nag bu fekkee mën nga leen a ñaan nañ ma may bàyyi ma dëkk ci réew mi nga ne fi la samay maam juddoo samay waajur juddoo fi ma jàng fi defe fi li ma fi def lépp suñ ko mënul dëkk yi leen soob ci biir réew mi mën naa leen a booleeg Cheikh Ibra Fall ak maam Cheikh Anta ak ñeneen ñu dem defaral ma fa kër buñ ma soxlaa fekk ma suñ ko mënul nag yóbbu ma ma Dagaskar ak bàyyi ma ci réew mi yóbbu ma gànnaar laa yemale képp te neexul ba neexul sax waaye sama seddu xol mooy yóbbu ma gànnaar mooy yóbbu ma Madagascar ndax foofa bu ma fa demee ni ma war a jaamoo yàlla moo ne ci réew mi dama ko dul man léegi nag ñu jël lettre boobu seex si day jox ko tubaab yi ñu daal di bëgg xam ne dana nangu keroog bi nga xamee ne weeru gàmmu jot na ba nga xam ne àgg nañ ci fukki fan yaak ñaar àddina sépp ñëw daw di gàmmoo si ma Manaan ngir eh, bëgg giñ bëgg sëñ bi ak gëj giñ ko gëj a gis ak dégg giñ doon dégg te mosuñu ko gis tax nag mbooloo mu bari teew fa tubaab yi nag am yeneen ceddo yu jóg dem di leen wax na leen nag liñ leen noon wax daal mu ngi gën a jege si dajale na mbooloo moom bu leen santoon ñu dal ci seen kaw dana dal ci seen kaw kon nag dal leen ciy jóg daar daar waaye dem nga moom ca Cheikh Sidiya Baba moomee ca la ko tubaab yi jaar ñu daal di fa yebal juróom benni espace yoo xam ne si bi ñuy génnee sëñ bi ñaar a jiitu kenn féete ko ndeyjoor kenn féete ko càmmoñ ñaar topp ci gannaaw mu juróom benn nga xam ne dañuy wan nit ñi ne ñun ñoo ko jàppaat génnee ko waaye mujj xalaatutu ñoo war a jege sëñ bi loola lañ doon asa secret woo léegi nag bi bisu gamma googu demee ba dellu si yem fukki fan ak juróom-ñeent ci lañ jàpp sëñ bi yóbbu ko mu yemoon nag la 14 juin 1903 gannaaw ba mu jullee tisbaar bisu gaaw ba julli tàkkusaan la fa daal gonte ànd ak espèces yi ñu jaar euh, Darou Alimal Xabiir mu jaar fa julli fa tàkkusaan door faa jóge dem fa fanaani geew ca dimanche ji yamoog ñaar fukki fan ci weeru gàmmu yamoog la 15 euh, juin ca lañ ànd daal di jaar ndula dem Njaaréem ba mu demee dimanche jooju ci kër commandant ba ko fanaan te mbaaxoon doon wax naan nañ ko dugal ci poste bu ko kenn seeti ca altine ja ca lañ signé contrat bi ko war a génnee ci canton bi yóbbu ko ca canton bi ci des nga xam ne ca altine ja la fa daal di demee jóge fa jaar tool te booba tuddul Touba Toul sëñ maam Cheikh Anta ko tuddee Touba mu jóge fa dem Tiwaawoon jël fa saxaar ci guddi ci bisub altine boobu daa di wàcc ndar fekk Cheikh Sidé baaba dem di ko fa tertu bi ko Cheikh Sidé baaba tertoo nag ba nga xamante ne si ñëw na fa ca talaata ja ca lañ am audience ci kër commandant ba nga xam ne ba ñuy dem dañoo fekk ñuy taxawal seen drapo bi dem di ko màggal waaye màggal gi ñu ko doon màggal tax na bi sëñ bi jëmee ba jub leen moom dafa won gannaaw drapeau bi tubaab bi gëdd Cheikh Sidé ne ko ne ko na siggi jàkkaarloog drapeau bi mu wax ko sëñ bi sëñ bi gàntal mu dellu gëddaat ko mu waxaat ko sëñ bi sëñ bi gàntal ñetteel bi yoon nag sëñ bi ne ko ci condition yi de mën naa nekk su ñu bëggee de mën na maa siggi jàkkaarloo drapeau bi waaye kon nguurug France tey lay mujj am ci kaw suuf fépp fu ñu taxawal seen seen nguur dana daanu léegi nag nañ ma wax ma siggi xool ko ak ma wan ko gannaaw lan moo leen ci gënal ñu ne ko na ko wan gannaaw ca talaata joojee lañ daal di siñel ki nga xam ne sii mooy Cheikh Sidé baaba autorisation bi war génnee sëñ bi pour yóbbu ko gànnaar ñu daal di fay jógee daal di jaar fi nga xamante ne si mooy Dagana jaar ca kër sëñ Mohamad Diop Euh, mi nga xam ne mooy bàyyi sëñ Malamine job Dagana fekk fa yit sëñ Cheikh Diop mi nga xam ne mooy màggi sëñ Malamine job Dagana ñu daal di fay jógee daal di jaar fa nga xam ne mooy gaay loolu mi ngi yemoon ak yemoo woon ak le 23 juin euh, wala le 17 juin boobu euh, moom la topp tombeeloon yemoog ñaar fukki fan ak ñett ci weeru gàmm daal di fay jógee daal di jaar fi nga xam ne mooy gaaya jóge gaaya daal di dem nag fi nga xam ne mooy dex traversé dex gi nga xam ne mooy gung njuk daal di dugg nag ci Eh, Mauritanie tàmbali nag ji jëfandikoo aaday naar aaday naar jooju ñu tàmbalee jëfandikoo nag mooy ñoom fu ñu toog bu fa ñax ma jeexee dañuy daal di tuxu jàllaat tuxu googu ñuy tuxu nag ba ñu demee ba Sarsara ba Cheikh Sidiya Baba daal di wax sëriñ Touba ne ko kat kon nanga nga daal di defaru ndax dañoo war a jóge ci dëkk bii jéem a dem fi nga xamante ne si mooy beneen barab sëñ bi ne ko dama am waajtaay mu ne may naa la ñetti fan ba ñetti fan yi matee di juróom benn eh, fan mu ne kon defaral ñu dem mu ne dama am waajtaay mu ne ko mayet naa la ñetti fan juróom-ñeenteel fan ba ba matee sëñ bi ne ko dama am waajtaay nag ci la ko Cheikh Sidiya Baba nag ne ko kon nag lenn moo ci mën a am danaa la fi bàyyi man damay dem te lii ma lay xamal mooy tubaab yi nga xamante ne si ñoom ñoom ma boole woon ak yow danaa leen fi bàyyee ndax man fu am ñax nekkul man damay daal di tux daal di xëqanteeg moom wan ko gannaaw mel na nag loo xamante ne si dafay doon xaw a jàppanteeg sëñ bi ba ñi nga xam ne ñoo ànd ak Cheikh Sidé Baba di yedd sëñ bi ne ko fi nga àgg ci jaamu yàlla nga ànd ak sa sëriñ ah mu di la digal ngay bañ mu ne ko yéen a am kumpa ci man waaye Cheikh Sidé amul kumpa ci man baana li kullu man lahu maqulu anna wasilati wa huwa rasulu waaye lii la ko Cheikh Sidé Baba wax ndax sëñ bi nee na ko su ma bokkoon ak yéen day ab jëmukaay man damay toog mu daal di koy wax walaw noxtal xiyaara lama aftarax naa wa lakkina la xiyaara ma zamani sëriñ bi ne ko laa xiyarama asiisi daa ne ko daal ñax daal moo tax mën a toog fi man lii la wax ba mu nekkee jaraar yi di wax ne ko xat jaa ani suula min rabbi bi takraari la sima indal biira xayra jaraari hamdi wa sukri li man hamdi wa sukri rabbi xaadali minanan fi sirri wal jahri ma bon bi la bii sax mooy bi nga xamante ne si ñooñu nga xam ne ñooy bànnoo daymaan ñëw noonu nañ ci moom ñëw euh, euh, jébbalu ci moom ku ñuy wax Abdullahi ibnu Buyda mu njëkk a ci moom sëñ bi di sant lool te naan am di wa sukri li man kulli bihi saara la uridan duuna suxtin inda sar saara lahu sanaa i wa ridwaani bila saqatin musxaadali min bayni daymaana anzaara lillahi kulli lillahi kulli la daa la daa abaari min taxal na wa fiiha jamma man saara inna la siina sar saara xat xasadu siyaarati faaraxu daaray ni aw saara loolu mooy li nga xamante ne si moom la daadi di tagge ña nga xam ne ñoo ñëw ci cant gi nga xam ne am na ko ci ni ñoom ñooy ay ansaaram yi nga xam ne tey ñoom ci madinatul munawwara lañ jóge ñëw ànd ak moom sant ñi nga xamante ne si ak ñaanal ñi nga xam ne ñoo doon jóge ci réew mi di ñëw ngir yàlla ci ndigalam ñëw fa doon ko siyaare ak ñoom ñëpp mu ñaanal leen gërëm leen foofa it la jotee li nga xam ne mooy wirdu maaxusun min allahi bi wasiti rasulihi sallallahu taala alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ko jox foofee lii mooy wirdu bi nag waaye nag tuuti lañ ci jàng ndax dafa gudd ausu billahi min asheytani rajim wa inni uiisuha bika wa zurriyataha min asheytani rajim rabbi ausu bika min amasati sayin wa ausu bika rabbi an yahdurun benn yoon a'uuzu bi kalimatillahi taamati min sharri ma xalaqa ñetti yoon bismillahi rahmaani rahim benn yoon bismillahi lasi la yadurru ma ismihi uh, fil ardi wala fi samai wa huwa samiul alim ñetti yoon bismillahi ma sha allahu la yasriqul xayra la ilaha bismillahi ma sha allahu la yasrifi soo ila billah ila allahu bismillahi wa ma bikum min nihmati fa min allahi bismillahi ma sha allahu la la la la quwwata illa billahi ñetti yoon bismillahi lasi uh, si sani an asimil burhaani sadidi sultaani insha allahu kaana aousu billahi mina seytaani ñetti yoon ba daal di jàng ayatul kursi yu ak laqad jaakum benn yoon wa ufawwidu amri ilallahi inna allaha basirun bil ibadi benn yoon hasbi allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshimi juróom-ñaar fukki yoon astaghfirullah al asim laa ilaha illa huwa hayyul qayyum juróom-ñaar fukki yoon laa ilaha illa huwa laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi salatan allahu tabaraka wa taala wa salama allahu juróom fukki yoon allahuma salli ala sayidina muhammadin fatihi lima wa xadim lama sabaqa nasir haq bil haqi wal hadi ila siratika almustaqim wala aliya qadri wa miqdari asim téeméer yoon laa ilaha illa illa allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fukki yoon allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman wa barakatan taxub lii biha shahadatan laa shaqawatan baxdama wa akbaru rida minka laa soxta baxdahu abadan yaa karimu yaa jamilu yaa wadoodu yaa rabbal alamin yaa badihu yaa wahaabu yaa eh, yaa wahaabu yaa wahaabu yaa latifu yaa karimu yaa naafiu yaa naafiu yaa akramu yaa rabbal alamin yaa ahadu yaa latifu yaa baaqi yaa latifu yaa akramu yaa daimu yaa xaaliqu dunya wal axiratu wa maliki dunya wal axiratu wa ma fiha wa bassir allazina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha naharu kullu ma rusiqu minha min samaratin risqan qaalu eh, eh, hadha allazi rushixna min qablu wa utu bihi mutajabihan wa lahum fiha aswajun mutaharatun wa hum fiha khaliduna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin lii mooy sarti wird bi bi ci jëkk sëñ Tuubaa nee na mooy ki koy wird dafa war a saxal jàng alxuraan kem kàttanam waaye bu mokkalee nag faaw muy jàng ñaari isib ak guddi wala bëccëg boole koog witër ku mokkalul alxuraan nag day jàng lamu mokkal ci guddi gi wala bëccëg tey taqoog julleeg mbooloo tey wird euh, wird wi gannaaw julleeg suba ak gannaaw julleeg takkusaan tey xam lu mboolem ay farataam ci wàllu gëm yàlla ak lu mel na julli ak lu mel na koor yu ni mel tey taxoog euh, gaa yi gaa yàlla yi kem kattanam tey bàyyi bàkkaar yu mag yi tey weeru ci yàlla wéeru ci yàlla te tuub tey def lu mu mën a jëf ci baax yi nee na ku koy wér di it mucc ci seytaane te da nga tàbbi àjjana ci lu dul euh, ñu lay xisaab te danga mucc yit ci naqaru àddina ak alaxira ak yeneen loolu la Sëriñ Tuubaa wax ci li nga xamante ne si moom mooy wér kon xam naa ne euh, dañ koo toppaat ba agsi foofu léegi nag gannaaw bi nga xamee ne loolu am na jiit jiitu loolu Sarsara kër gañ ko fa defaloon dafa mbaaral mbaar moo xam ne si dafa daan toog di waxtaan ak ni ba benn bis liggéey boobu nga xam ne moom la doon liggéey loolu sëñ Amsatu Jaxate muy gaal yi mu suuloon ci déeru mën naan dafa yebal fanweeri nit ak ñett jox leen ñetti mbàjj ne dem leen ca réew ma bu ngeen demee ca sama kër ga ca déeru mën naan ca sawub néeg ba ngeen gas ba jot sama liggéey boobee ngeen def ko ci gaal yi ngeen àndandoo yanu ko bu ngeen sonnee ngeen lal mbàjj yi muure ko wër ko ba nu ñu agsi nu ñu def ko noonu ba agsi mu daal di woo sa ñam satu ne ko suñ borom kat moo ma wax ne ma liggéey bi maag yow noo ko saytu nañ ko seet di def nag léegi bu xëyee daal di ci sëq ab sëq ab jukki jox sañ am satu jox ko kayit gu gu bees mu sotte ko lépp buñ jullee tisbaar ba noppi sëñ bi ñëw jubal si ci sañ am satu bu dikkee sañ am satu yëkkati ñaari jukki yi jox ko lam jota eh, sotti ak la nga xamante ni si it moom la ko joxoon léegi su ko defee la nga xam ne moom moom mooy la ko sëñ bi joxoon muy mbindum boppam da koy def ci kalamba daat koy xooj ba mu ba mu ba mu far mun naan ko ba mu jeex nee na léeg-léeg du ma ci may dara ba benn bis nag Serigne Touba ca liggéey boobee la fekk sëñ Amsatu nag ne ko am na loo xam ne si da bëgg naa ko ba ko ñaanal ci ay loolu ci weeru baraxlu la ko waxoon ci cat la loo xam ne si bu ngeen ma ci ñaanalee bu dikkee day dana baax ci yéen mu ne ko ah man de xawma loo nuñ a ko xamee nga def ci ban la ko ñaanal keroog ba mu ko ko ñaanalee wax nañ ne ñii juróomi fan ñi ne fukki fan ñi ne fukki fan ak juróom-ñaar ci la julli suba ba noppi daal di génn ci bitti kër ga ci wax nañ ci taatu sump la wala taatu garab wala taxaw ak yónnente bi ci loo xam ne si du ay nelaw du ay gént mu di ko sa wirdu manqusun min bii ñu leen jàngaloon ba noppi daal di ko ci kayit bi koy wan sañ am satu ne ko la ma leen doon ñaan loo lépp na kon loolu mooy li nga xam ne mooy wirdu manqusun min allah bi wasati rasulihi sallallahu taala alayhi wa sallam kon xam naa duñ daal di def rek lu dul daal di continuer ci liggéey bi su ko defee ñëw nag ci xew-xew yi nga xam ne xew na Sarsara Moustapha Guèye taalibe Sëñ Sama Samba doon leen toppal jaar-jaar yi Sëñ Touba ci yoonu Gànnaar ak yoonu Gabon ak i mayam ak i ngëneelam ci barke bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla may màggalu jàmm طيبت قلبي بعد ابتدائي سل وسلم على المتمم وكل ياس بلا انتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره بهذه المنظومة بكل وقت وحين أبدا آمين وهب لنا سمها رضاك الأكبر بكل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يسول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم